affaire yooyu noonu damay dugg ci beneen sujet mooy première dame moom tamit dañoo gis ne ku ku la ku fën la ci démarche moom tamit xanaa du ci yow lay inspiré woo yow est man li ma jig ko moom aussi tamit moom dañuy gis ay vidéo ak seetaan fans finalement c'est une hérésie qui inspire tout le monde absolument c'est comme ça <laughs> c'est comme ça. ñu ko ñu eh, loolu euh, parenthèse la woon ah. parenthèse la mais dafa daw sama question. bu mujj bi ah, na daa ëpp nag. Ah. bu muy embrasser kooku nag. non du embrasser waaye invité ko waaji waaji mu ne lan la m daf ko am daf da ko doon dee. waaw ah, di li ngi gis de moom fóon la ñu gis. déet waay ma ndee la. neen ko fóon bu bu kii ah bu bu simple la ñu gis. Euh, pour encourager une personne. c'était trop c'était un geste de trop pour yow. non il a voulu non mais non il voulu encourager une personne il a voulu montrer qu'elle était simple c'est mu fon ko. Mm. oui mais euh, bon. en tout cas vraiment du ko mm. def parfois parfois quand même. Mm-hmm. oui en forçant quand même euh, day def force. si nekkoon man elle parfois oui. Mm. pour oh, dañ ne dafa naturel ci moom ah loolu la wax dafa naturel ci moom. dafa simple waaw day de chef d'État on l'embrasse pas n'importe qui. Ah. Ah, ne dafa ñàngal. jegewul kenn jegewul kenn jegewul kenn en tout cas man jegewu ma. jegul benn femme fan politique. est-ce que def nga lu lay jege. non elle le président na la. mais écoute c'est notre première dame. Mmh. qui doit s'approcher de toutes les femmes sénégalaises. chaque année dafa waroon dajale toutes les femmes élites de ce pays mais da leen daw. Mhm. ñëpp gis nañ ko. dajale leen pour waxtaan ak ñoom pour jege ñoom. bu waxtaan ak ñoom parce que c'est notre première dame. mais moom fàllu ñu ko ah njëkkëram la ñu fal. waaw mais écoute euh, le couple est important donc dafa war ko war a dafa war a def dara loo xamante ne am na ko du budget dara loo xamante ne war na dajale femmes yi pour wax ko soxlaa daal le euh, a sa caisse noire lu mu ko jox. mais dafa waroon dajale les les femmes euh, intellectuelles pour gën a miinante ak ñoom mais on a constaté que da leen da leen di daw ñoom ñëpp et puis on ne sent pas une première dame au Sénégal. Mm-hmm. dinañ ko seen daal ci réseaux sociaux yi léeg-léeg mu déconné. mu de ko ne. di affaire di. mais pourtant dañu jàpp ni lu naturel la rek ah ku jigéen. bu je serai à sa place je verrai jamais ça. Mhm. ah lu ma simple simple yow nit ñi xamee kay bu ko jubu bu la ñi xamee bu ko wat ndee la bu la nit ñi xamee nga free nga nga fën. mosuñu maa gis ma fóon nit de du ma ko xam maa gis ma fóon nit non mais mais kii kii euh, euh, le gars la. gis ma euh, dee nit lu mu ko mhm. neex wax. ñu luy gis fóon lañ gis mais amul solo. que chacun son style. Mhm. chacun son style il va apprendre de, de ses erreurs elle va apprendre de ses erreurs. pour yow erreur la. mais bien sûr c' était même pas mhm. ah, defee aussi ah. léegi léegi législative yi lan mooy perspective ban avenir nga gis ci yeewi askan wi ak wàllu perspective nan naka la ñu war a mën a def. su fekkee il il euh, maintient le euh, le le duo ils peuvent lu ne mën a am maanaam ànd bi. ànd bi dañ ko war a maintenir ànd bi dañ ko war a saxal. parce que ànd bi suñ ko saxalee si la ñu mën a am majorité. Mm-hmm. si la ñu mën a fexe ba Karim Wade ñëwaat Khalifa Sall mën a nekk candidat tout ça ànd bi moo ko waral moo ko mën a moo ko mën a permettre mais su ku su nekk su bëggee diirante mbagg morom. du sotti. du sotti parce que ñu fa nekk ay bleu lañu la cour de la rentrée des classes. Mm-hmm. ñu fay dugg. doo fa seen ndaanaan yi de ay bëla nga fay seen ñoo xam ne xamuñu dara si politique. Mm-hmm. loolu du indi beneen image bu ñu nar am ci sunu quatorzième législature bi. waaw y aura d'autres personnes ñoo xam ne ils vont apprendre il y a des assistants parlementaires et ils vont apprendre ils vont apprendre les autres auront le temps pour dañuy am jot sax pour def seen campagne présidentielle. loolu moo tax ma ne Ndella buñ ko afoon dina baax mu bañ koo dégg. Hmm? buñ la buñ ko amoon foofu rek. comme ça du ma nekk si campagne bi. Ah, di leen di emmerder. waaw non non. <laughs> kon la de loi dina ko mën a porter. mais candidat yi moo dàq. dina ko mën a kii mais candidat proposition de loi xanaa man li ma def si xanaa nga ko xeeb xam nga yéen da ngeen ma xeeb. non. te damay def lu rëy si rëy réew mi. da man ma yokk askanu Sénégal. J'ai permis aux femmes sénégalaises de donner la nationalité sénégalaise à leur enfant né à l'étranger de père étranger kam ah, moo def loolu dee la maa joor maa sama sama exemple la campagne am doom bu weex tal métis ñu ne man juruma ko doom mhm. du ma ko jox nuñ ko jur naa ko mais du ma ko jox nationalité mhm. fexe naa ba dam ba consulat Sénégal bu nekk New York mhm. moom kayitu kayitam kayitu Sénégal